sa combat yow. dégg naa Jamaïcain taxawal na ko. mu ngi ne nee na juboo na ak yow. le 14 août incha allahu rabbi booy fay dina ñëw def signature contrat. moom ak kan Jamaïcain kaay. mais jam jaar moom war a avancer fi war a jaar ñu. jaar na fi war a jaar ah, jeex na da dugg da dugg da ngay dugg Fatick. wala da dem. ñoo <laughs> wala da ngay laal mbër bu dëkk Joof yoor ah. wala kan ngay laal ndax sa diggante rek Ibou Ndiaye Obale bi ma ko fi buggee taxawal ñu bare bare bari ñëw nañ dugg am na sax ku ma ci woon Garga Mbossé woon na ma da ngaa bëgg a mais instant yi am na kum la bëgg a jox parce que pare nga pour bëri moom ndax xam nga adversaire bi mbëru parcelle laa fi bàyyi hmm. waaw mbëru parcelle laa fi bàyyi ak am na yoo xamante ne nii làmb mënu ma la la bëgg a yóbbu fi bàyyi la làmb ma fi bàyyi. ci écurie bu mag la la bëgg a yóbbu Pikine nga laal mbër mu mag biir Pikine. nee la làmb ma fi bàyyi jili <laughs> làmb moo fi bàyyi damay liggéey te instant bi il est temps jot na ko wax. bëre ñu bari ci làmb nee nañ Boy Faye dafa favoriser li nga xamante ni mooy bëre simple. waaw door bi est-ce que Boy Faye war na fa mën a bëre. Boy Faye bëre bëre dóor la. ku ne xam na loolu. <laughs> ah daal ñàkk bi rek. ah waaw. ayca <laughs> bo ja Jamaïcain kii di Boy jox da nga ko joxoon avance. combat ba euh, amul adversaire actuellement nii daa mel ni wutal nga ko adversaire fan nga toll ci wàllu woowu. waaw ñëpp xam nañ ne diili contrat bi biñ koy signé fii yaa fi nekkoon. Hmm. war na utal Boy Faye adversaire pour mu war a bëre yàlla mi dara tawul combat bi yàq ko ci côté adversaire bi ñu continuer woo ko jox ko avance am. Hmm. waxtaan ak moom ci ay kàddu pour utal ko beneen adversaire bu mu bëree. Hmm. depuis boobu léegi nag ñu ngi cherché ay adversaire mu dem ba jamono dab ko ñu pare am ci ay adversaire yoo xam ne jubóo nañ ci te incha allah rabi pour le moment mënul nekk ndax saison bi day laaj. Hmm. waaye bu saison bi tijjee incha allah rabi waaye fay day bëreel jam production. dina bëreel jam production. kon mën nañu gis ni le 14 août. booy fay dina ñëw def première face to face moom ak adversaire bi nga ko bëgg a boole. waaw rabbi loolu mooy suñu yéene te ci lañ taxaw. Hmm. am nañ yaakaar ne balaa la 14 moom adversaire bi mu bëgg dinañ boole. Hmm. Hmm. boo xasee jox avance jaar a jaar. boo sañee mu bëreel la moom tamit bu sañoon bëreel la. yàlla defee bañ nekkoon di ko sarse ay trouvé adversaire bu mu a bëri wala koo xam ne bëgg la pour moom am na yaakaar ne dañ ci demaat si bi taxaw. Mhm. mu bëri ñu contrat bi waroon dox suñu diggante moom wàcc ko mu dem xool. adversaire bi ñu koy bëreel fan la nekk adversaire am di mu war a nekk parcelle de astafurla mën na nekk Guédiawaye mën na nekk Pikine mën na nekk Soal mën na nekk Fadiouth mën na nekk yaa ma gën a xam. Mhm. lamb yaatu na am nañ kaa trois yoo xam ne dinañ ko démarrer combat Boy Faye moom incha allah rabbi mbëru simple nga koy boole wala mbëru dóor man ma doon mbëru simple man ma doon mbëru dóor ndax bëggoon nañoo moom benn mbëru simple bu mag ba sore woon ci combat combat bi après dafa mujjoon yàqu hmm. amaana ba tey kooku mu ngi ci biir adversaire yi hmm. su bëggee mbëru simple su bëggee mbëru dóor ñetti adversaire yi ñu si choisir la ku ci yàlla dogal pour nga mën a bëre ak moom combat bi na taxaw hmm. waaw mais kaaw Boy Faye jubóo nga ak ñoom déggoo nga jubóo nañ bu yàgg ba mu jot suñu avance loolu leer na adduna yëpp leer na manager leer na ay agent problème bi mooy problème mu adversaire bu mu war a bëre. Hmm. yaa ngi dégg ci loolu lañ nekkoon. Hmm. na am na ay adversaire yu ñu si teg moom waxtaan nañ si jubóo nañ dinañ ko dal adversaire mu bëre ñu. jërëjëf jàmm.